Awa Ndiaye bénéficiaire u PASA maa ngi yëngatoo si wàll euh, xar ak ginaar waaw ñun bénéficiaires yi daal euh, ba tey dañuy dellu di sant waa PASA waaw dañuy dellu aussi di leen euh, dellu njukkal waaw vraiment jàppoon nañ mais ba tey bàyyiwuñu ñu ngi gën a jàpp ndax tey li ñu fi daje wàll ba tey dañ ñu si Covid waaw ndax euh, macha allah aliment bétail lañ ñu indil tey waaw aliment daanaka ku nekk ku nekk euh, liñ lay jox tey presque dina la gunge 6 mois waaw 6 mois vraiment lu loo xam ne dafay gunge nit loolu ba tey si jàppal waa ndimbalu waa PAZA la. ban jeexital liggéey waaw liggéey vraiment dafay gën a jàpp liggéey bi ndax euh, Covid bi arrêté woon na liggéey bépp mais lii presque dafay mën a dundal jur bi waa six mois lu mën a dundal jur bi dimbal la. jafe-jafe yi ñu amoon tuuti si Covid bi xawoon nañu baare tuuti ndax Covid bi arrêté woon nañu suñu liggéey pour ñu dundaloon jur bi xawoon na metti tuuti mais nii waa Paza dindi nañu si loolu. waaw indil nañu aliment bi nga xam ne dinañu mën a gunge 6 mois. dinañ ko soxla ndax euh, presque ñun dañ doon dundal jur bi rek mais ba tey nii nii macha allah nawet bi macha allah mais ba tey lii ñëw aliment bi dina ñu mën a gunge. jamonoy amoon nañ difficulté amoon nañ jafe-jafe tuuti ndax euh, nawet bi tàmbali wutoon si biir Covid bi dund bi metti woon na liggéey bi arrêté woon na amuñu woon lu dundal jur bi mais waa PASA bàyyi wuñ